Pape Mor Ndiaye nekk Papa Mor Ndiaye nekk responsable union régionale Thiès Sud Sas euh, ma ma nekk ak sama naataango yi nga xam ne ñoo bokk ci bureau bi ñuy jógee ay ay secrétaires généraux ñuy jógee euh, Tivaouane ñuy jóge Thiès ñuy jóge également Mbour ñeneen ñi nekk ay membres aussi dans les différentes instances ak militants yi ndaxam sax am na yeneen syndicats yoo xam ne ñu ngi ñuy soutenir techniciens supérieurs syndicat techniciens supérieurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, beneen yeneen syndicat Sintrace ak yooyu li ñu mën a jàpp mooy tey dañoo am euh, rus nañu am nañu mbetteel mbetteel bi mooy mënuñu xam ne jëye ji ba mu amee Sénégal gi yëpp ñëpp ne jëye am na liggéey justice enquêteurs yi dinañ def seen liggéey justice dina def liggéeyam ñu xool ne juróom-ñeenti fan tey ñu nekk kirtim ñaari xale yu ndaw yi jàpp leen comme ñoom ñoom jëye ji yëpp foofu la foofu la yem loolu ñun dañ cee am sax gàcce bi ci des tamit li ñu am lu ñu njàqare gi ñu am moom mooy nan la jéeya ju mel nii am ñu jël ñi nga xam ne ay fajkat lañu seppi leen comme ñoom daal ñoom ñoo taal ñoom ñoo bañ a fay ba xale yi ñàkk seen baja bakkan avocats yi aussi wax nañ leen lan leen ñu toppee mooy mooy comme méngoon ak li nga xam ne moom la ñuy li wax ba léegi rek mooy bàyyi nañu xale yi foo xam ne dafa wéet ba jëyee fekk leen ca mucc ñu ci maanaam ñun am nañ ci négligence waaye ñun suñu xel dal na foofu dal na foofu parce que ca njalbeen ba léegi xale yi ñoom ñu ne nekkoon nañ fa da war a nekk seeni kilifa ñu ne dal nañ fa ñaari yoon ñetti yoon ba ba jëyee ji am gis nañ leen toog nañu foofu foofu suñu xel dal na fa li ci des nag avocat yi dinañ def seen liggéey beneen bi nga xam ne am na solo mooy ñun dañuy dañuy wéy di leen taxawu te ci taxawu boobu talaata incha allah kenn du liggéey toogaay yi ñaxtu ba yor-yor passé ba tisbaar passé bu tàkkusaan di jub dinañu réunion waat ñun kàngam yi ñu toog ñu teg beneen plan d'action boo xam ne bii dañ leen di soutenir. je suis monsieur Papa Mor Ndiaye secrétaire général de l'union régionale Sud-Sas Thiès comme vous le voyez nous sommes là les responsables de Thiès de Tivaouane et de Mbour en la quasi-totalité du bureau tous des responsables sont autour de moi de même que les autres camarades donc. de ces localités-là. Le pourquoi nous sommes là également, on peut dire que c'est notre troisième jour ici. Depuis que nos camarades ont été donc prévenus et sont entre les liens du, de la détention, on est là, elles ont bénéficié de trois retours de parquet et aujourd'hui, au, au dernier moment, elles ont été déférées. Et nous, ce qui nous anime aujourd'hui, c'est un sentiment de déception et de désolation. Déception pourquoi Parce que nous, on attendait plus à notre pays là. Parce que voilà quelque chose, une catastrophe qui s'est déclarée. Donc euh, l'arsenal a été mis en jeu. Et au finish, il y a nos, nos, nos deux travailleurs là, simplement qui ont été fait l'objet d'arrestations. Donc voilà la grosse déception. Comme qui disait, la montagne a accouché d'une souris. Et la désolation également. Parce qu'on ne peut pas comprendre des, des, des, agents de santé dans une catastrophe avec un incendie, donc d'origine euh, installation, tout ce que vous voulez. Donc, ici, on désigne du doigt des, des soignants jusqu'à les, les arrêter. Ça aussi, on est véritablement désolé. Bon, on vient de parler avec les avocats. on nous reproche de deux, deux, choses. Avoir des enfants dans un milieu solitaire. Je ne rentre pas dans les articles et dans le vocabulaire juridique. Il y a, il dans l'autre article également, cette négligence jusqu'à ce que donc on n'a pu peut-être sauver les enfants. Donc on, on, dit on n'a dans ça. Parce que nous, depuis le début, que ce soit les autorités au niveau de l'établissement, que ce soit les prévenus, Bon, ils nous ont fait savoir qu'ils étaient sur place. Donc, parole contre parole, les gens verront après pour la suite. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, que très vite que ces gens-là sortent de là-bas et que la justice se, fait, se fasse d'une manière transparente et dans l'équité. C'est ce qu'on réclame. Et sur ce, nous, on va continuer à les soutenir. Au sortir d'ici, mardi, il y aura un sitting dans l'espace régional. Le soir, le bureau va se réunir et après, un deuxième plan d'action va sortir pour les soutenir.